al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi wakafa wasalaamun ala ibadihi alladina astafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ci al ibadatu wal xidma ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ñaanal jàmm di delsi ci sunu jotaay bi ñuy faral di seq di ci tontu ay laaj laaj bu njëkk bi day wax ne koo xam ne day bay waaye bu bàccee ba noppi fa gerte ga nekk noonee da ko fay bàyyi te léeg-léeg mu ci tibb di joxe di tibb di joxe di di maye te gut asaka ndax sañ na loolu mm, mu ne am na ñoo xam ne ñoom dañuy def buñ nattee juróom-ñeenti la ñuy natte daal nattu fukkeel berko ko bool jëm ca asaka ja la ñuy génnee asaka la joxe asaka euh, mu ne ndax loolu tam luñ sañ la waaw lii mujj wax de moo gën ci koo xam ne euh, am mbayam dajalewut lépp benn yoon xam ni mu toll benn yoon li gën kon mooy lum ci ciy lu ne lam cee génne na génne fukkeel ba te mooy anam gii mu wax ni dégg naa ci ñiy bay dugub am na ñuy def noonu ñoom it bu ñuy mboo bu mboolu sax buñ génnee juróom-ñeenti gub génne wenn gub teg fële wala juróom-ñeenti say génne aw say teg fële loolu aw doxin la ci koo xam ne bëggu ta daj bëggu ko wala mënu ko mënut a dajee daje loondoor li mu am lépp xamandoo ni mu toll kon loolu mooy cosaan daje dajale li nga am lépp xam ni mu nga xam la cee génn ci asaka nu muy toll bu fekkee loolu yombut nag lépp looy loo cay jële rek da nga génne fukkeel ba moom boo ci lay jël boo ci dee jël fukki kilo kon na nga ber benn kilo bi mu dugg ci asaka ja juróom-ñeent nga dugal ko fa nga koy dugal bu dee ay ay ay takk la nga def ko noonu bu dee leneen lu mu mën doon tam nga di ko defee noonu waaye doo bàyyi ba noppi rek bàyyi ko noonu di ci jëfandikoo te xamagoo nu lépp toll te la nga cay génne itam jël itam génne wa ci asaka ñaareelu laaj bi ba léegi ci asaka la jëm mu ne am na ñoo xam ne ñoom dañuy bay gerte waaye buñ bayee dañuy jaay ba noppi génne asaka xaalis ba loolu du yoon loolu du cosaan daal cosaan mooy am mbay ci jëmmi mbay ma la ñuy génne asaka ja kon ci jëmmi gerte gi lañ koy génne waaye bu ko xasee jaay ba noppi itam nag mën naa génn ci njëg ga bu bu na xam ne génnewul asakay xaalis waaye asakay mbay lay génne mooy kon njëg kon fukkeel ba lay génne mooy dix pour cent yi lay génne dix pour cent yi xaalis bi ko jaayee lay génne asaka waaye du génne asaka deux deux virgule cinq pour cent ndax bu doon xaalis la moom deux virgule cinq pour cent lay génne bu mbay nag dix pour cent lay génne waaye li cosaan nag mooy mu bañ koo jaay génn ji mi mbay ma ci boppam bu dee gerte mu génn ci gerte ga bu dee ceeb mu génn ca ceeb ba ñetteel laaj bi ba tey ci asaka la jëm te moog bu njëkk bi sax nag ñoo yem rek ndax fii daa aju ci dugub ba lee aju ci gerte rek ndax dafa wax ne ki nga xam ne dafa bay dugub te ñoree léeg-léeg mu dagg ci dara bojj léeg-léeg mu dagg dara jox fasam te génnee ko ci asaka ndax sañ na loolu euh, sañewu ko noonu li ñu waxoon ci laaj bu njëkk ci ci laaj bu njëkk ba rek ndax tontu lenn la rek la dee gerte lii di dugub rek li am daal mooy ki bay bu mbayam ñoree bu mënoon a dajale lépp xam nu mu xam la ci génne ci asaka nu mu toll noonu moo gën a yomb waaye bu ko mënewut noonu it nga xam ne lépp lu mu cey génne lu mu tuut tuut lam lamu la mu génne di ko di ko di ko jëfandikoo na génne fukkeel ba ber ko moom mu jëm ci asaka ji nga xam ne kon boo ci bu dee day bojj wala day jox fasam yëpp na na génne fukki xaaj yu benn xaaj bu mu ber ko mu dugg ci asaka ja juróom-ñeenti xaaj yi mu dugal ko fa mu ko bëgg a dugal buy def noonu saabu lépp jeexee fekk na lam doon ber muy asaka mooy doon li war a génn ci asaka yi ñeenteel laaj bi ba léegi ci la jëm mais dafa am ñoo xam ne ñoom lañuy bay bi muy tooy lañ koy jaay eh, moo xam muy gerte wala muy mboq ndax ñooñu kon lañuy jaay door a génne li ñu waxoon la wax rek am mbay moom jëmi mbay mi la ñuy génne asaka moo xam bi tooyee bi muy tooy nga koy génne moo xam bi muy wow nga koy génne ginnaaw nag léegi natteetuñ yañ daan natte dañ koy peese peese gi moom bu woowee lay gën a foog naa ne euh, kon xëy na li li gën a wóor ci yow moom nga bàyyi ba mu wow nga peese ko door ci génnee sak euh, waaye jaay ko moom du du ci cosaan jaay bi daal ki xas jaay ba noppi moom dañ naan ko bi nga jaay ba noppi nag moom na nga génn ci xaalis bi waaye ki jaayagul nag dañu naan ko bul génn ci bu ko jaay da ngay génn ci mbay ci boppam. juróomeelu laaj bi day wax ne ndax jigéen joo xam ne yàlla da ko mane gan mooy yàlla da ko may wërsëgu yaatu ndax sañ naa jóg di labati góor ak bu demoon bañ bañ koy maye ndax sañ na ne liñ ciy def yëpp moom moo koy def labat de moom góor góor koy def la ñuy faral di wax waaye jigéen moo xam am na wala amut sañ naa gis góor gum bëgg wax ak ay kilifaam ne leen dama bëgg sàngam bu may ma ko loolu moo xam am na sañ na ko ni góor sañee gis jigéen jum bëgg dem wax ci ak kilifaam noonu la jigéen sañ gis góor gum bëgg wax ci ak moom jigéen ji ne leen dama bëgg diw sàngam euh, sañ na ko boobaa du tudd laban nag laban moom lañ koy tuddee mooy góor gi nga xam ne mooy yëgle bëgg-bëggam ci takk euh, soxna soxna sàngam waaye nag jigéen am na sañ-sañ moom itam bu fekkee bëgg na mu wane mu bëgg-bëggam moom itam euh, anam gu seenu sëy man di demee it moo xam moo njëkk wane bëgg-bëggam wala góorgee njëkk wane bëgg-bëggam jigéen sañ na jox ki koy takk la war a dem ci yëf yi sañ na koo may ndax mayee la rek boobaa te ki am alalam sañ na koo may ku ko sopp rawatina ki ab sëy na dox seen diggante wala ki ab sëy dox seen diggante ba noppi bu dee mayee guñ ko ko moom euh, sañ na koo may lu ko sopp mu def ko ci luy tax bi sott bu dee may lañ ko ba noppi itam euh, mën na koo may lu ko sopp ndax lim am sañ na koo may ku ko sopp juróom-benneelu laaj bi mu ne koo xam ne mën naa liggéey ba noppi waaye mu baña liggéey di yelwaan ndax sañees na ko sarax euh, sañ gi de kenn du wax ne sañeesu koo sarax waaye nag gënut sarax ko gënut wala boog euh, ku xam ci moom loolu bu amee lu muy saraxe te xam koo xam ne moom euh, benn daa mënut a liggéey wala ma ngay liggéey waaye la ko yàlla wërsëgale moo moo mënut a faj soxlaam mu jox ko kooku mooy gën mooy gën di ko jox koo xam ne moom daa jéemut daa sabab lu ki sabab lu nag waaye yàlla moo yemale fii wërsëgam jox ko kooku moo gën di ko jox ko sabab lu ta te mën a sabab lu nag du tax ñu ne sañeesu koo jox waaye nag jox ko ki nga xam ne daal sab sabablu na moom bu dee ku mën a wala mu doon koo xam ne daa munta sabablu jox kooku moo gën jox ku mën a sabablu te sabablu wut juróom ñaareelu laaj bi moom day wax ne kuy yare ginaar la ngir di di leen jaay moom nee xam jàpp na ne xam na ne asakaam asakee xaalis lay doon wala asakam njaay la ñuy wax asakam njaay rek moo asaka asaki xaalis ñoo bokk ay kon asakam njaay lay doon asakam njaay nag li ngay jaay lu mën di doon mooy jamono yi ngay eh, xoole ndax asaka war na la ci wala déet eh, da ngay xayma li nga am ci xaalis li nga yor li nga am am sax la am moo xam yor nga ko moo xam ko waaye li nga am ci xaalis li doon xaalis te nga moom ko ak li doon marchandise bu dee ginaar yi ñuy yer marchandise li leen di jàppe mooy boo leen doon jaay tey tey loo leen di jaayee moo xam xeetu ginaar gu ci mën doon nag ginaar gi nga xam ne euh, dañ koy yer ngir ngir yàpp yi wala ginaar yi ñuy yer ngir nen yi ñooyam ndax lu ci ne rek moom boo ko bëggoon a jaay danga nga ko mën a xayma da nga mën a xayma ne tey jii bu ko doon jaay nangam laa koy jaay loolu rek lañ koy xayma ak nag li nga am ci xaalis ak li nga am ci leneen bu dee nen ay nen yu fa nekk moom itam te jaayee googu da nga koy xayma moom it bu ko doon jaay tey loolu lépp ngay boole kon jëmmi ginaar yi fi nekk da nga koy xayma nen yi fi nekk te jërëgul da nga koy xayma. xaalis bi nga amee itam da koy xayma ak foo ko mën amee nag xaalis xaalis bu fu mën di jóge nga boole xaalis boobu ak nen yi ak ginaar yi bi nga ko xaymaa boo boolee lépp loola mooy li nga am bu matee lu ñu war a génnee asaka nga génne ca deux et demi pour cent deux et demi pour cent ci gàttal mooy dang koy xaaj rek ñeent fukki xaaj yi tolloo génne benn xaaj bi mooy da koy diviser par quarante li nga am muy asakay xaalis ak asakam njaay koy diviser par quarante génne benn xaaj ba juróom ñetteelu laaj bi day wax ne nit koo xam ne dafa am ab pàkk waaye pàkk bi nag doomam moo ñëw tabaxal ko fa mu dëkk fa moom mi ko moom mu génn àddina ndax doom ji sañ na ne tabax ma fi tabaxoon maa ko moom sama baay moomoon nga xam ne kon jëmmi suuf si rek la ñuy miraas waaye lim tabaxaloon baay moom kenn du ko miraas moo ko moom bu fekkee moom moo bëgg a jënd suuf sa rek lañ koy jaay euh, du sañ loolu du sañ loolu du sañ loolu ndax ba mu tabaxal baayam da ko koo may ndax loolu rek mën a nekk ku kuy tabaxal baayam ngir mu dëkk fa da ko koo may ginnaaw da ko may rek bàyyi ma ko moom bàyyi ma moom tabax ba ma moom suuf sa kon bu fi jógee lépp la ñuy doon lépp la ñuy doon loolu rek mën a nekk mënut a tabaxal mu dëkk fa tam ne mayu ko ko loolu du du kenn mënu koo firi ndax nit sañu ta tabax ci bérébu jàmbur baay ba moom am suuf sa kon bu fa tabaxee ngir mu dëkk fa moom bàyyi ba kon da koo may bu doon dafa tabax fu mu dëkk moom loola moom moo moom kon bu fi bàyyi bu jógee it loola moom moo ko moom lu ñuy bu ñuy jaay loola moo koy moom moom benn ñu xaymawaale ko jox ko ko wala bu dee jënd moom ñu bañ koy xaymawaale waaye ginnaaw baayam la tabaxal baayam dëkk fa moom loola baayam a ko moom ni moome suuf sa kon lépp lañuy ñuy miraas moom ñëpp ci yem juróom ñeenteelu laaj bi ba tey ci asaka la day wax ne xam na eh, gerte nu muy toll askawar ci xam na itam dugub nu muy toll askawar ci waaye sëb la xamul nu muy toll askawar ci eh, xamu yooyu neexut a jàpp dëgg-dëgg waaye mën nga koo xamal sa bopp ni koy xamale sa bopp mooy boo <coughs> nattee ci sëb sa ñaari loxo sa ñaari loxo boo boo tibbee sa ñaari loxo ci sëb peese ko xam nam toll man nga caa sukkandiku ba xam kon sëb na muy toll ñu ñu génn ci asak booba loole nga am danga koy multiplier par quatre lam lay jox nga multiplier ko par soixante lam lay jox nga multiplier ko par euh, cinq kon sa ñaari loxo yi daal da nga koy multiplier par quatre da nga naan kon ñaari loxo yi boo xamee ni mu toll bu doon ci misaal xëy na quatre cent grammes la da nga koy multiplier par quatre lam la jox nga multiplier ko par soixante lam jox nga multiplier par cinq lam lay jox mooy li nga xam ne bu ko bu bu ni sëb tollee war ci yëpp noonu lañ ko war a natte li nga wax ci kii nag xaw naa sore ci man lool diggante gerte ak ak dugub nga xam ne ko ñaarte wala ëpp na ko ñaarte sax li mat li asaka war a génn ci dugub li nga wax mooy ñaarte na li asaka war a génn ci gerte Euh, waaye daal nii lañ ko mën a xam nii lañ ko mën a xam xamee mu nañ ñi moom yi ci def ay ay nattale lay doon fukelu laaj bi day wax ne dafa julli ba noppi bi mu ba noppi seetlu ne taab kum amee woon euh, toj na naa ba tax ci tubéy ji ndax julli gi baax na wala day julliwaat lii njëkk a njëkk a seet mooy lan moo lan moo taq ci tubéy lan moo ci taq ndax deret la wala wala wala dëtt la bu dee deret nan la toll ndax bari na wala bariwut bu dee bariwut du yàq dara bu dee dëtt du yàq dara bu daa juli ba noppi sax door ko yëg tu du yàq dara ci lu mel noonu deret yoo xam ne daa taq nga julli ba noppi door dara na ko raxas nag ngir ngir li jublu ngir yeneen julli yu ñëwagut waaye kii jàll ba noppi moom du ko yàqal dara fukkeelu laaj bi ak benn day wax ne na ku juddu ba mi laatam ay bis mu faatu ndax danañ ko jullee benn ak it ndax danañ ko wutal aw tur ne daa seetlu ne ñu mel noonu lu ci bari nit ñi duñ la yóbbu ci armeel dañ leen ci kër yi bu dee jullee moom ku judduwaale bakkan rek dañ koy jullee bu faatu woon ca bis ba sax bu amoon ay minute rek faatu sax ginnaaw xam nañ ne judduwaale na bakkan rek dañ koy jullee kon kii kii ki dem ba am ay fan amut ay bis am nay fan dañ koy jullee moom it bu dee wutal tur nag tur moom nit ñee ko soxla rek nit ñee ko soxla ngir ngir xaaj xàmmee xàmmee nit seen biir ku faatu ba noppi waa bu la neexee ñu wutal ko tur ngir nekkatu bañ koy xàmmee ñi fi nekk waaye xëy na buñ bëggee wax ci moom ñu mën a xam ci ne ci diw sàngam la ñuy wax doomam ji doomam ji tuddoon jañ tudde nangam tudd ko sax nag ndax ginnaaw bi faatu la ko tudde waaye mooy doomam jañ tudde nangam waaye wutal ko tur ñàkk ko wutal ndax tur moom xàmmee moo tax ñu di ko wutal ku faatu sax mën nañ ko bañ a wutal tur ku am doom bañ ko tudde neen <laughs> bu fekkee bu bëgg na moom moom mi ñu tuddewul neen moom mu tudde boppam lu ko neex <laughs> wala bu dee mën naa wéyte ba ñu amul tur mu wéyte ba ñu amul xam naa nag société bi sax moo ko du nangu société bi itam ñooy bëgg di xàmmee nit ñi te tur na ci li ñuy xàmmee nit wala moo ci jiitu kon loolu la ki xas faatu moom euh, wutal ko tur ñàkk ko wutal tur ñooyam denc gi ci kër yi nag loolu tam moog yow moog mag a ci yam rek denc moom fu nekk lañ ma denc ku ne waaye nit ñi nag ñoo taamu di wut ay bërëb yu ñuy denc ñu faatu waaye ku ne lañ ma denc ci kër ku ne lañ ma denc ci armel ñu ngi ci nit ñi rek nañ ko bëggee waaye du du loo xam dañ naan ci armel rek lañu war a denc wala ci kër sa lañ war a denc fuñ denc baax na nit ñi rek ñooy ñooy baaxoo lu nañ wutal ko béréb te itam lu yenu maanaa waaye du loo xam ne nag day lu mun te ñàkk sàkkal ko euh, xale ndaw yi nag nit ñi am nañu aada ju mel noonu waaye bu njëkk daanañ ko def ci mag ñi sax bu ngeen seetloo yonent bi ci biir néeg soxna Aysa lañ ko denc ci biir néegam lañ ko dencoon mu nekk faak moom fukkeelu laaj bi ak ñaar te moo ci mujj day wax ne jigéen ju ñu may boroom kër te jotuta dem kër boroom kër ba moom jigéen ji mu ñaan baat boroom kër ba boroom kër ba ne ko danga ma jox nangam ma ma door laa yewi nee na bañ ko ñu tàmbul di ko jox moo ko ak bokk yi ñuy dajale di ko jox ba muy laata mat am ku ñëw di bëgg jigéen ji ñu ne ko ñu wax ko na mbir ya deme kii kat daa nekk ci buum waaye da koo laaj nangam ngir ngir ngir kii ko yeewi ko moom mu ne la ca des mën na koo joxe moom mi bëgg keneen ki bëgg nii mën na koo joxe ñuy laaj ndax dagan na moom mu joxe mu jox jigéen ji lu mottalee lay tax ñu ñu ñu ko foofu de am na lu ci jara leeral mooy demut demut kër borom këram dem kër borom kër ñàkk dem kër borom kër du ci àtte bi li jeex jeexital mooy wéet nañ wala wéetuñ ndax mën naa bañ a dem borom këram ba noppi tañ wéet borom këram bu fekkee wéet naa moom kon bu sëy bi jeexee day jàpp da bu fekkee jotu ñoo wéet nag kon bu sëy bi jeexee moom du jàpp idda loolu lenn la kon dem gi kër borom kër du ne moo jeexital ci ci att bi bi bi bi bi am ci mbir mi waaye la ca jeexital mooy ndax wéet nañ wala wéetuñ benn ñaareel ba itam li tax jigéen ji di ñaan baat lan la ndax da ci loru moo tax muy ñaan baat wala loru wu ci waaye daal da koo safatul rek da koo neexatul rek bu dee da cee loru moo tax muy ñaan baat kon góor gi suñu koo laaj xaalis suñu koo laaj xaalis bu ko laajee xaalis sañ naa bañ sañ a dem ca yoon yoon bu gëstoo sañ na koo tas góor gi du dara bu fekkee nag jigéen ji loruwu ci waaye moom rek moom da ko neexatul rek daal boobaa fa la ko góor gi sañ a laaje xaalis lam ko laaj nag fu mu ko koy jëre moom moo ko xam xaalis bopp bu mu am la wala xaalis bu ko keneen di may la bu fekkee noonu la deme kon kii ko may xaalis sañ na sañ sañ na koo jël moom it faj jam ca jam am aajoom fi mu ne nii mooy mottali luy tax ñu yewi ko boobaa du tuddati may baat waaye jaay baat la kon góor gi da ko bëgg a jaay baatam ndax bu ñaanee baatam mu ne ko da nga may jox nangam kon mayetu ko da koo jaay kon daa bëgg a jënd baatam yitteem mooy jënd baatam kee may na ko xaalis mu jënd ci baatam bi nga xam ne mooy yitteem loolu sañ na ko dara newu ci waaye nag bu fekkoon ñu weet bu jëndee baatam ba noppi day jàpp idda ba idda ji jeex eh, ñu door ko maye kuñ ko bëgg a may bu fekkee jotu ñoo wéet nag moo xam demoon na këram moo xam demut këram kon dem kër gi ak ñàkk dem kër gi moom du ci dara waaye wéet gi ci la yëf nekk ndax mën naa dem këram te taxut ñu wéet mën naa bañ a dem këram te eh, ñu wéet kon bu fekkee wéet nañ daal day jàpp da fekkee weetuñ nag du jàpp idda kon moom bu joxe euh, li muy jënde baatam rek ba borom kër bi nekk kon fase naa la day daal jeex mu daal di mën a siyaat keneen ci saas loolu kon mbokk yi moo fi ci laaj yi nuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp wasalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa